seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu tocc ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu gaawee ko ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñii de seen xol ya boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi di leen waar di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol toj ndax seen xol yu dëgër moo tax ñu ne nit ci xolam dana dëgër من تيتم دنا أم سبب نخ دلنا من عبد الله بن نعم عمر رضي الله عنه نخني ينتي بسم الله عليه وسلم نخني لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قصبة القلب دلنا من عبد الله بن نعم عمر من ينتي بسم الله عليه وسلم دنا نخني بلن جبريل وخ واو تتبلن تيالله danañ toog ci grand place waxtaan lu toll ak ñetti waxtu te fàttaliku ca yàlla tuddloo ci sa borom lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni ci politique ngay wax wala wax ci yeneen xam-xam yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yëpp waxtu la ngeen fa def yëpp fàttewul leen ca benn yoon seen borom. yonent bi nee na loolu dafay xol bu wow toog ci barab waxtu wu yàgg te lan fa toog yëpp fàttalikuwoon fa yàlla tudd naa ko fa nee na loolu dafay waral xol bu wow moo tax yonent bi ne fa inna kasratal kalaam min xayri bi xayri dikrillah mu ne kasratul qalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul danga koy natt ci tuddu gi ngay tuddu sa borom ci bis bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su barewul nag jàppal ne sa xol woow na jëlee nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alai sallam wax na ne arbaun min alshaqa jurudu alshiqa جهود العين وقساوة القلب وطول الأمل ala على anas أنس malik nee na wante ngi nii dafay waral jénge nit ki texee di dugg safara bu ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kersa soo demee ba amatuloo kersa ci kenn jàppal ne benn màndarga feeñ na ci yow buy waral sag safara soo demee ba sa xol wow dootoo déglu deglu musique moy gëna neex ci yow deglu kaddu yalla bu boba nak nga xam qaswatul xaswatul qalb mu ci yow ben mandar gaana ben mandar gaam ngoog buy wane ne yow mi nitu sa parade beneen ba ci dess ci tam di toolul amal waaw nëgët bu yag bis bu nek nga naan eh, kër sama amon atu sàngam sama amon kër sàngam waaw su ma moomoon nangam su ma demoon barab sangam waaw eh, xëy na man naa nekk millionnaire xëy na mën naa nekk milliardaire ci bu ma yàlla defaloon nangam nangam ak nangam di mébét rek mébét yu dul jeex. kese la amul kenn ku génn adduna te bàyyiwuloo mébét waaw ku génn bàyyi nga projet waaw kon nga xam ne mënuñoo jeexal adduna dañ fiy dund dañ fiy dund rek dem moo tax mu ne képp koo gis muy mébét. waaw di mébét di mébét rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jullit du bëri mébét ndax dañu wax ne bés bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw bu guddee nga ne bëccëg du fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri mébét ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maanaam xër ci àdduna waaw xër ci àdduna di dajale àdduna rek loo am doyul waaw loo am rek doyul dafa nga ne daal dara doy la ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latif alxabir yàlla nee na doomu aadama bi bu ma ko defaloon géej yépp jama jox ko nee na du tax mu doylu ndax dama geestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bi kon mu gën a baax nga xam ni kon yàlla gën a xam nit boppam doomu aadama neeneem suuf rekk a mën a fees biiram suuf rekk a mën a waaye lu mu am dayu ko boo xëree ci àdduna bu mu ëpp ba mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xiiree ci àdduna bu ëpp na jàpp ne itam mandarga buy waral safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent ci mandarga ngoog yooyu wane texe nekk nit ki moo tax mu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu bakkanam rek dégg nga maam nekk moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla xamal na ko ne ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka al balaag wa alayna al xisaab daal dañu la wax rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerné dégg nga ëllëg itam rek ba ñun la concerné waaye li mu bëgg rek mooy wax loo nen la waxal kon yaa nañu yàlla musal ca xol boobu mu des beneen xol moo di al qalbul marid mooy xol bi nga xamante ne dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne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 dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay naafiq lañu ñoom kat ñu ngi jéem nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ni gëm nañu am ngëm gu wér yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yëguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen seen bopp ndax kat lu wayran bi ci sa loxo lay nàcc kon li ñuy jëf bu ñu foog ni la ca bon ak la cay ayib ci seen kaw lay këpp déedéet ci seen kaw rek lay këpp yàlla nee na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan wa lahum adabun alimun bima kaanu yakdibun yàlla nee na yonent bi naafiq yooyu xol feebarug sikk moo ca nekk man yàlla ma dolli seen feebaruk sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ndànce weddi na mu weddi nu alquran mu ne tey ëllëg danaa leen mbugal mbugal mu métti ci jamono yonent bi naam waaye léegi sax la gën a am dangay dugg ci biir jullit ñi gis ñi nga xamante ni dañuy woote ne jullit nañu ci seen làmmiñ waaye boo toppee seen comportement dangay gis ni ay yéefar piir lañu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def su ñu génnee àdduna ñu jullee leen force ndax jullit lañu waaw foo waxee sukkandiku ci lislaam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën laa neex la moom fop te kat lépp loo xamante ni rek yàlla banoon na ko ñoom ca la nekk lépp loo xamante ni yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet loolu nag képp koo xamante ni vérifié nga comportement jullit ñi da ko ci gis waaw ci la ñuy dem booy daganal yu bari yoo xamante ni chara ay dafa xaram ñooñu nag nanu jàpp ne melaw naafiq mu ngi ci ñoom seen xol dafa feebar te kat yàlla jox na ngëneel yéeféer yi ci kaw naafiq yi ndax yéeféer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla taxaw ci kanamu jullit ñi ne gëw ma yàlla gëw ma alquran kooku neex na moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la kum jullit ñi di def yëfi jullit te fekk la xol ba ëmb boo di ak kéeféer kooku lu gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma moo tax ñu ne ñooñu la tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñooñu la tuddee ay yàqkat ci kaw suuf moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ko ne ko am na ñu nga xam ne seen xol dafa feebar moo di naafeq ni naafeq yi nag comme ni ñu ko waxee mooy ñi mbubboo ne jullit lañu te duñu defe fi jullit ñooñu ay naafeq lañu ñooñu itam ñooy yàqkat yi ci kaw suuf ndax liy defar ci kaw suuf moo di lislaam kon li ki yàq lislaam mooy ki yàq ci kaw suuf نحن يعلم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يعلم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يعلم يعني ما فقر كت نيك نيك لن نتجلد يسلي دمين لن فرال دوار دلن وخنان لن ينكت بلن دياق صوف biñ leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ni innama nas innama nahnu muslihuun ñun teg defara ñu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ni dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir lislaam te boo waxee kat ñu ne defar a tax defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf xaritoo bi jullit ñi di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtu jumtuwaay yi waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi waaw mooy télévision bi rajo yi média dañuy dem ba noonu lislaam yi dañ ci dugal yoo xamante ni dañuy ñàkk doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo nañu ko ak yéeféer yi lu tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu kafirina awliyaa min duni almuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi l ard ittixaadu almuminina alkafirina awliyaa waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéeféer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nañu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàqute gi am ci société bi ci jullit ñi ñëpp li ko waral moo di eh, dégg relation yi nga xamante ni dox na ci diggante jullit ñi ak yéeféer loolu moo tax itam eh, xale yi loolu danañu wax ne ay jullit lañu ci làmmiñ waaye nag amuñu yaru jullit amuñu comportement jullit parce que nañu leen ko xamaluñu leen ko kon dañuy dem ba léegi seen xol day nekk xol bu feebar dootuñu mën a te nekk jullit dëgg-dëgg am xol bi nga xamante ne moo di alqalba salim di xol bi mucc ci mboolem ay bi jikko yi waaw pour nga dox ba gis jullit dëgg-dëgg daf lay tëj waaw jullitu naafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool kon lii la yàlla wax ne ñoom ay naafiq lañu te itam ay yàqkat lañ ci kaw suuf ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax ñoom naxuñu ku dul seen bopp kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu nañu defee ci jullit waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn ñu ko nax waaw ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara moo tax mu ne ñooñu nga xamante ni ay naafiq la mu ëllëg yawmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy dañoo am dañoo am itam mbugal bu rëy ndax dikk na ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni danañu digal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen mënu duggi àjjana waaw malaaka yi panti ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana ñoom ñépp ñu kontaan ñuy waaxu ba jub àjjana ba ñu ñëwee wastanshiqu raihataha ñu commencé foon xetu àjjana wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis palais di gis château بجس نطبخ يا رفتي وإلى ما أعد الله تعالى لأهلها ودم بجس إتم خيوال يا يلا بريباريال وين خم انت اي قمنك بجس ني أجل الشيخي بريخم بجس ما جو جرفتي بجس نت نخمك من يسلي ترفت تلار نكت بوبو مولا مو من يجبل مو مو مو جيت لون malaaka yërmande yi jiital leen mel ni ku leen di dugal aljanna ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woot ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen taxaw kàddu bi ne leen wëlbatiku laa nasiba fiiha wëlbatiku leen yéen du seen cër يرانا نكلف نونو فيرجعون بحسرة وندامة نونو نونو لني ونيكو أنك ترت أكريتشو نونو نعم، أنك ترت بوخم انتبه نيلن جيتو ون مسلمكو ترت مسلمو جيس اتم ترت بمن نون بتخنون مجاكر لك سنبرم جاكر لك يالنان كربنا لو أدخلتنا النار قبل أن تري قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب ما أعددت لأولئك yàlla ne leen maanaam ñu yàlla yow suñu boroom boo ñu dugaloon safara lu jiitu nañuy wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu gën a jub safara gën a jub àjjana yaakaar ne fi la dugg nga tas suñu yaakaar yàlla tas na suñu yaakaar yàlla ne leen maa aradtu bikum loolu laa namoon ci yéen ndax kat yeneen naafiq ya nekkoon àdduna doon na nax di nax itam way gëm ñi di wa di feeñal ak lislaam ci kaw di nëbb itam ak kéeféer ci suuf loolu itam moo tax ma feeñal man tam mel ni dama leen di dugal àjjana ba ngeen am ci yaakaar nekk maa ngi nëbbu seenu dëgg safara ci suuf kon daalik ma ada bikum lii laa namoon ci yeen du ngeen nitu aljana du ngeen ko mus du ngeen ci dugg kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te su ngeen fa duggee itam yéeféer yi ya sax yéen a leen di gën a metti barab ñu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci darakal asfal min al tax ñoom yàlla ne leen kuntum ida xalaltum bi baarastum ni bi abain yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu mboolem xeetu kàccoor xeetu mooy nguur nit yaakaarul ne nit dana ko def bu ngeen wéetee da ngeen ko def dangeen ngeen rey nit da ngeen jaamu da ngeen sacrifier ay bakkan mboolem xeetu mooy yi ma gën a bañ ci kaw suuf su ngeen làqatoo bëtu nit ñi da ko def تقبل في ملأة الإسلام تقول تئتم فإذا لقيتم الناس لقيتموهم مختبين تراءون الناس وتظهرون خلاف ما تنطلي قلوبكم عليه يعني نعم سنين يدفع من النجام ونكنين سنين دجيك نكينو دينا نعم سجل سيني الناس دي يمينو دي وانا لي اي جلس بيرجل دي وانا لي نباخ لين تكتر su leen wéetee mboolem xeetu kàccoor bu ne sañ ngeen ko def yéen daal xëttumu duniyaa dama laa ragaloon adduna lu lam taxaw boo neete ragal ak waltumu naa sa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyal walam tujëlloo ne te màggalu leen ma réyalu leen ma man yàlla mi leen bind wa taraktum linnaasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam tatruku te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ mu sikk leen mu ne kon loola tax man tam bi ma tax seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen moo tax ñoom nafiq yi daan nañu yëjji jullit ñi nga xamante ni dañ na moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen l'islam normalement xam nga yonent bi sallallahu alayhi ñi ko toppoon nit ñu doy di lañu woon ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dàll yu bon lañ daan sol waaye nag seen roox ak seen xol set mu wëcc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ne mën nañoo toog ak malaaka ya gën a sell waaye nag seen zaahir dara rafetu ci woon daaw ñu lekk lekk gu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daawuñu sol mbubb yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daawuñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon ña nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi succès daawuñu sawar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wér dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara loo tax ولم مسانا وخنلين آمنوا يقولون آمن الناس تينينا دم كمي يقولون باخني توبي محمد جم ولي يقولون كما آمن السفهاء نخ برام يقولون مانكي نيت ني داي دي يقولون نخ ني گمه يونت بي يقولون نخ ني نان لي ني يقولون يونت بي ديريك مون بوك يقولون دانيو مات ني دانيو بيرسوناليتي مون دانيو نيك نيت ني دين ñun yonent bi suñu nawle la yonent bi nangam ak nangam commencé diir yonent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñaloon seen ngëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattan te bu ñu amee kattan mën na mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen a mbir yoo xamante ne suñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet ala innahum humu sufahaau walakin la yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na kon da nga gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba bi ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bi nga xamante ni ab naa feex la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am na toppatoo te boo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab dof nga waaw moo tax kàddu boobu dafa jóg képp ku tegu ci ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéene jël sa tànk teg ko fu ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne da nga dégg dana dégg ay kaddu kàddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kii werul kii kat dof la kii kat xamul jamono te kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow dof la waaw waaw wa in yakaadu alladina kafaru la yasdiqunaka bi absarihim lamma samiu dégg na baatu dof ba tey moo tax ñi fi baax ci jamono bi fokk ñu dégg baatu dof na waaw parce que la ñuy jomb mooy la lislaam jomb ci la lislaam boo ko jombee ci jamono bi nag ñu tuddee la tegu ci lu baax tardé كي واتشو بو باخ عندك شيطاني كوكو مو تابي مو تخ يالا ني الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون من الدات السفي دنن كو فرال دي تودي خالي اك جيجين ناخ ديك نتي حديث ينتي صلى الله عليه وسلم ني ان النساء السفهاء ان التي اطاعت قيمها واو متخ ني نكون السفي moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi daan na wax ni jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu des jigéen ji nga xamante ne topp na boroomam ak jëkkëram jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufaha illa allati ata'at qayyimaha jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boromam def ko xam la ko war ci digganteem ak borom këram def ko yonent bi ne kooku moom xelam mot na waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax su ko boobu maanaam baatu euh, safir boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas topp ay ndigalam bàyyi ay teram ديك ني تانت ان قران يالا وخني ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اموالكم التي جعل الله لكم قياما يالا نانا علال جما لين جوخ بور نين تاخاوي كو سي سين والو كوميرس اك يينن نانا بولين فيك نك نيغا خامنتيني سين خال سين خال ماتو نين جوجو دنج كاي ولا ني واخو موتاخ السفهاء امنا سي بروم خام خامي moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan jigéen yi tam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ciy jox rek na doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu ulaika alladina ashtaraw dalalata bil huda fa ma rabixat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin ñooñu nag ñoo jël seen àllaaxira jënde ko àdduna yàlla nee na ñooñu nag seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon àdduna bu gàtt bi nga xamante ni ay at yu néew nga fiy am bànneex yu néew nga fiy am yàlla nee ba mu la jaral àllaaxira bale nga xamante ni ba faaw la ba faaw la àllaaxira ba faaw la waaw dund bu neex ba faaw wala dund bu naqari ba faaw mu nag loo ciy def rek na ko xam loo tax mu ne kon Luqmaan looloo taxoon mu jàngal nit ñi wàllu xol ne bu xol baaxee ci nit ki léppam baax waaye bu xol ba bonee léppam bon alxuraan sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbul mayit kooku mooy xolu yeefeer yi ak xol bi nga xamante ni da nga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp nag ci jamono ji